boo jëndee am boo jëndee li nga am danga ñafe ba am ko yow boo jëriñoo dangay jël réew mi nit ki lu muy rawee ay moroomam su koy def ñëpp dañu koy seetaane naan mën na ko mënu ko ngay jéem ba yàlla fekk la ca suñu engagement dara lalu ko lu

dans le cadre des commissions qui existent kon kooku boo leen il faut que doon nit koo xamante ne dafay àndoon des principes, des valeurs Nous avons waral ñu les meilleurs candidats que nous avons aujourd'hui pour Thiès ce sont ceux qui ont été investis par la coalition Natangué Askanoui. et nous ngi demandé, demander tout comme je le ferai tout à l'heure vais dire à mon propos mooy ngeen égaler kàddu yi sénégalais yi nga xamante ne ngi dëkk biir Thiès département Thiès de manière à ce que ñu xam au soir du 31, la seule liste qui doit sortir vainqueur à Thiès, c'est la liste de Natangé Askanbou. Voilà pourquoi, si nous le Sénégal, nous avons l'ensemble des points sur lesquels nous devons nous pour mener nous suñu réew ci l'ensemble des politiques publiques nous nga nous ne waroon ci pour que Sénégal yi mën ci gis boppam gis nañu nous dafa doon aujourd'hui lu ñu gis dañuy sukkandiku ci li nga xamante mom moy le développement wala la construction d'infrastructures pour jàpp ne Sénégal avancé na mais au même moment on se rend compte que sénégalais yi dañuy dund appauvrissement bo xamante comme on voit que dafa am décalage entre li nga xam ne tabax ay infrastructure ak li nga le développement du capital humain te réew mënul avancer bu nekkee capital humain baaxul moo tax ñu ngi jàpp les politiques publiques qui ont été menées au Sénégal jusqu'ici nga xamantane xamnañu ni liko ko laal li nga xamantane ne koy faire en sorte que le capital humain puisse être développé waye leneen moo ko laal moo ñun ñu jàpp ne nous devons faire en sorte que assemblée bi nga xamantane mom lañuy la ñuy dugg nii jël li nga xamantane mom moy ay responsabilités jël le destin de ce pays te loolu yaakaar nañ ni bo leen ñu joxee la majorité puisque tay li ma leen di wax mom moy li jëm ci le département moy li jëm ci la liste département mais au-delà de 10 départements de de bëgg message il s'adresse à la fois aux Tchessois, mais il s'adresse aux Sénégalais dans leur ensemble Dans li niveau bëgg que que Sénégal est li nga la majorité parce que vous nous allons bâtir les politiques publiques yi de bâtir les réformes institutionnelles pour avoir un parlement qui soit responsable bâtir les politiques publiques pour traiter la question sociale dans le cadre d'une politique économique digne de son nom am na loo xamante ne il faut wax leen ko ndax wax naa sànq ne nous sommes en train de vivre un moment historique dans notre pays waaye xam leen ni le Sénégal est au bord du gouffre maanaam Sénégal li ko desee mu daanu bëreetul du du lu ko wax FMI moo ko wax ANSD moo ko wax boo leen xoolee les statistiques yi nga xamante ne ASD mi ANSD mi koy publier ngeen xool li nga xamante ne moom le Fonds monétaire international di publier ngeen xool li nga xamante ne moom la banque mondiale publier. moom la ñu jël ñun di ko traduire pour wax leen li nga xamante ne moom lay su moom lay signifier de manière à ce que vous compreniez les enjeux.